ci yéen Coro euh, jox ma foofu plaquette bi nekk foofu euh, nii rek la ñuy tàmbalee tey ci émission lënd bi euh, muy seen émission yeewu leen Rhismondies jox ma fay yooyu muy yeewu leen Rhismondies hmm, yaa yàq nii ñu nettali la wala ñu baal la <laughs> baax na baax na baax na feuille normale laa wax sama feuille yi may liiree ah, Euh, Alaaji Malick bu fekkee ne ñi ci téléphone bi ñëw nañ nañ ma wàcceel euh, plaquette yi plaquet yi rek laa soxla nii ay ca euh, fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañuy sant yàlla ak yonent bi rek julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñaanal suñ ñaari waajur yi jiitu yàlla yóbbu leen àjjanal firdawsi ci barke Cheikhul Khadim hmm. di ñaanal sëñ Muntaxa suñ borom bàyyi ko fi lu baree baree bari ay junni at ci barke Cheikhul Khadim maama mën na ko ndax liggéey na lu toll noonu ci àddina Euh, non pas ci réew mi ci àddina Serigne Touba àddina yëpp la liggéeyal ah mi ngi noonu kon euh, ñu def rek lu dul ñaanal ko suñ boroom bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg Mbacke Balaye sa bëre sa toog bi am na njëriñ yàlla yéen bi oyof ci barki Cheikhul Khadim di ko ñaanal kilifa diine yi si àddina bi yëpp ci barki Seydouna Mohamed di ñaan euh, yàlla bàyyi ñoog suñu njaboot ak ñu ñu bëgg ñëpp ci barki Serigne Touba Mbacke barki Serigne Saliou mi nga xam ne ñun moom la bëgg yaakaar ko ay ca bu leen fàtte nag ni di nuyu nag ñi ci réseaux sociaux bi xawatina ñi ci Facebook live bi ak ñi nga xamante ne ni ñoo nekk ci euh, seeni kër di ñu seetaan ah. d' accord tey nag dañuy euh, jaale euh, képp koo xamante ne Sénégal la ñuy jaale Pape Bouba jóg hmm, parce que Sénégal yëpp am naqar tey ah ñi nga xamante ne nii macha allah fekkee wuñ 2002 xale yi soog a judd sax tey dañu am. yàlla na fameem yàlla may leen xolu muñ ci barke Seydouna Mohamed dafa metti doom yu ndaw yi mu bàyyi yàlla na leen yàlla tëyal boppam ci barke Cheikhul Khadim metti na ah metti na torop. ba tax na lii àndul ak kaf tey àndul ak ree ndax dañoo ñàkk Sénégal moo perte ah dafa metti torop torop torop ba tax na képp koo xam ne euh, metti na la rek yàlla na la rawee lu baree bari ci barke Cheikhul Khadim ay ca ñu dem nag ci euh, euh, kii xaalis bi ñëw na xaalis baa ngi nii am nañ fi tey ñaata ma xool 100 am nañ 200 am nañ 300 400. am nañ cinq cent milles lii bokk ci man maa ko moom ak euh, ay perruque yaakaar naa ñu yoraloon xaalis ñëpp yónnee nañ leen seen xaalis yoralatuñ kenn xaalis mu des greffage yi am na ñu jël mais defe naa it am na ñu des am na ay greffage yu ñëw ah léegi nag ñuy wax ni euh, képp koo xam ne am nga fi greffage ñu diggoon la ko rek mën nga koo jël si TFM waaye bu leen fàtte xaalis moom amelatuñ ko kenn defal nañ ñëpp seen i transfert d'argent xaalis ku ko ci gañe toogal sa kër te xam ne di nga ko jot suñ téléphone it euh, suñ application transfert d'argent bi ñu am am na xaalis pour yeen mën nañ envoyé direct ba ba muy jeex bu jeexee tamit dañ leen di jox rendez-vous ngeen xaar ñu yónneewaat leen ah, ma xool suñu application ñaata la am ci xaalis may ma ma consulter dièse cent tak tak tak tak ok suñu téléphone tamit am na un million 150 mille 21 1 million 150 mille 21 am nañ ko ci suñ compte transfert d'argent kon yaakaar naa ne du soxla sax ñuy di kenn ku ci gagné mën nañ la ko yónnee direct bu fekkee réseau baa ngi euh, bien ay ci Alaaji Malick téléphone bi bu noppee rek noppi naa mais dañuy dem nag euh, seetaan parce que nee naa la man nii laa mel hmm? dama koy sentir rek ni ma ko yëgee laa koy defee comme nag mbiru euh, Pape Bouba Diop lu ma choqué la daf ma metti àndul ak ak xappi àndul ak ak foo créer parce que dama ko natt ci sama bopp ah dama ko natt ci sama bopp waxuma sama benn mbokk yàlla na yéex waaye sa xarit rek bu la jegee bu génnee àddina doo bëgg kenn ku ko booleek fo parce que dee ñàkk dafa metti ñàkk metti na metti goo xamante ne euh, euh, dëgg la ci liggéey lañu nekk munul ñàkk waaye tamit ñu defee ko manière euh, bokk ak fameem ak ay soppeem naqar bi ba tax na ñi ngi àndandoog yéen ñëpp yéen ñi ñàkk ñëpp Sénégal yéen ñëpp ñi ngi àndandoog yéen di bokk li nga xam ne mooy naqar bi boo xamante ne mooy wor ak euh, ak ak ak ak ak vie privée ah wor ak vie privée lañ am tey parce que ñu bëree bari dañuy jaawale euh, dañuy xamuñ ñu bëri xamuñ lan mooy vie privée ah vie privée ñu bëree bari xamuñu ko ba tax na ki nga xam ne da nga wéet ak moom wax ak moom mu génn say wax génn li nga xam ne mooy sa secret ak ki nga xamante ne nii mi ngi lay enregistré di génn sa ay secret te ñu la jege lay doon vidéo yi ngeen di gis muy rëcc di dem ci ñi ko war a wone ñëpp ñoom jegewuñ leen ña leen jege ñooy génne seeni vidéo ak ki nga wóolu yónnee ko sa vidéo mu yónnee yónnee ko keneen vidéo bi di tourner di tourner ba yegsi ci ki nga xam ne samba booy la ba war koo tasaare ngeen moytandiku nag yéen loolu sàggan la waaye tamit ñu koy tasaare ñu am secret am vie privée surtout ah euh, bàyyi leen xel addina li ngeen di jàpp ni fo la mën na koo yàq ndax secret doomu aadama boo ko génnee mën na yàq àddinaam te àddina lu ñàkk fayda mën na koo defar waaye lu ñàkk fayda mën na koo yàq ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax dem seetaan vidéo bi nga xam ne wayoon nañ ko Lyon yi euh, ca 2002 Pape koy may yéen ñi am naqar yépp ñu feddaliwaat kóllëre ak suñu cofeel ak moom gunge ko mu àndak ak suñ borom ak yonent bi ba àjjana ay ci ñu dem seetaan ko ñëwaat léegi léegi.

nga xam ne 2002 lu bari doole la woon ci Sénégal hmm? xam nga ne lu yëkkati Ismaïla Lo yëkkati Thione Seck yëkkati euh, yusundu Ndour yëkkati euh, euh, Coumba Gawlo Seck yëkkati ñoom Viviane xam nga ne loolu du lu ndaw hmm? ñu nekk xale yoo xam ne macha allah dañu ñu teral ah donte bu fekkee ne 2002 fekk na ni xàmmee wuñ torop tamit loolu macha allah gis ngeen Sénégal ni mu yëngoo woon. mu nekkoon la dul doy waar kon bu ñu ñàkkee ku toll nii du ñu def rek lu dul àndandoog moom di ko gunge ba àjjana rek ak yu baax ak yu neex kon nag yàlla na ko yàlla xaree àjjana tey nag ñi ci Facebook bi li ma leen di laaj mooy ay euh, euh, ay drapeau rek laay laajte ak Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xaree àjjana képp loolu rek laa soxla ndax yéen ñi ñaan kenn xamul ban làmmiñ moo ci barkeel te plus de euh, mille et quelques personnes di bind loolu suñ borom dina am koo xamante ne dina ko rus nangul ko ko naam yaroom ak jëfam ju baax ak ay waajuru ay ngërëmu waajuram mën na ko jàppale parce que yaay bu gërëmee papa gërëm suñ borom day gërëm waaye tamit euh, ñaan bénéfice la ci nit moo tax tey jii euh, yéen la ñuy xaar rek seen i drapeau booleel ko ci gaynde drapeau ak gaynde lañu soxla ba pare ñaanal ko suñ borom yóbbu ko si loolu rek laa soxla tey ku ko ci ëppalee ay ca farlu leen ay ca ay taalibe leen te taalibe day dégg ndigal waay ay ci gaaw leen gaaw leen gaaw leen gaaw leen ayca ayca ayca ñu dem nag jël téléphone ñi ngi may wax ni téléphone bi tàmbali na tey nii rek la ñuy yendoo ba émission bi jeex tàkk tàkk tàkk tey spécial Pape Bouba Diop la dañ koo bëgg mu nekk suñu frère boo xam ne macha allah hmm, ñu koy jaale nag équipe nationale di jiital ki nga xam ne mooy euh, euh, Aline Cissé hmm, xam naa am na naqar ak joueurs yi nga xamante ne macha allah ñoom tamit ñu ngi ci équipe nationale ku ci mel ni ñoom Kara Mbodj ñoom Sadio Mané xale yi ñëppay am naqar ndax dañu perte tey ñoom gisu ma leen waaye ku ci amoon tey match doo ko joué ji ah parce que dafa metti dafa xaw a metti torop torop torop di ko jaale nag El Hadj Diouf ah, di ko jaale xaritam Henri Camara dégg naa démb ba tey ma nga tëju nanguwul génn ndax ñoom ñaar ñoo nekkoon ay meilleurs copains Henri boo xoolee Pape Bouba Diop lu mu mës a dugal ah fii nii boo seetloo Henri gis nga da koy kii kii kii ko songu Henri kamara la. Henri la ñoom ñaar benn nit lañ woon du ñu ñaar ah waaye euh, xam nga lan moo ma neex ci affaire bi. artiste ak nit bu siiw nit boo xam da nga populaire lu la dal say proche dañ ko war a nëbb dund na dundam ba ni mu demee kenn yëgul feebaram loolu nag entourage ñoo ñoo vigilant ñoo am ñoo am bàmmeelu biir parce que am na solo nga am tur nit ñi gisatuñ la rek di lijjanti foone ba xam ci li nga ne di ko waxtaanee man démb laa yegg ni dafa feebaroon feebar bu yàgg ah macha allah ñi ngi koy euh, ñaanal Henri yàlla may ko xolu muñ te xaritam bii dem di Pape Bouba Diop mu dëddoo ko jàmm ak salaam hmm, àddina nii la ku nekkay dem lii war naa tax ñëpp ñëpp ñëpp baax léegi nag ay ca maa ngi xaar euh, ñi nga xam ne ñi ngi may yónnee ay drapeau ci Facebook live bi maa man waxuma ay jooy de ñii di ma yónnee jooy yuuxu bi waxuma ko xam nga yónnee nañ ma yuuxu boo bëri rongoñ man duma am na naqar ba pare ngeen booleel ma ci ay yuuxu dégg ngeen man drapeau laa laaj ak gaynde waa kii nee na euh, ndeysaan euh, tonton euh, buuba Diop xam naa ko ko xam la yàlla na ko yàlla xare aljana amin ci barke Serigne Saliou Mbacke yàlla mën na ko dina ko def xale bu baax la woon kooku Amina billaay naka dimanche ban kii waxu dimanche lay wax ñun waxu tey démb dé ah, ah waaw waaw d' accord d' accord d' accord d' accord xam bu ma amee nakar nu ma neex lay dundee euh, repose en paix Pape Bouba Diop ay ca loolu rek laa soxla repose en paix Pape Bouba Diop ak drapeau yu bari ak ay gaynde parce que ñun dañu ñàkk xam nga lan lañ ñàkk gaynde la ñu ñàkk. alors xam nga ku ne mën na dem ñu xam ni doomu Sénégal la mais xam nga suñu gaynde yi bu ci benn jugee daf ñuy metti yaa ngi dégg léegi nag dama bëgg ngeen defal ma repose en paix Pape Bouba Diop boole ak drapeau yu bare bare am na kenn ku gañeegum kii nee na repose en paix euh, Pape Bouba Diop ah léegi nag boolekook ay drapeau ak gaynde mi ngi tudd Kani Gueye ah Kani Gueye gañe nga gañe nga fii greffage dama ciy boole sax greffage ak xaalis tey pour mu ne xaar ma defal la sa transfert euh, xaar ma capturer numéro bi ba pare waaw nee na repose en paix Pape Bouba Diop dafa dégg tubaab nag gay farama ci ndeer euh, madame Nia dafa dégg tubaab torop hmm, xaaral ma defal ko transfert am léegi léegi léegi fii ma taxaw ay ayca xaaral ayca mayaat ma beneen son le temps que may def transfert bi mën nga ma bañ a génne jox ma son bi rek nee na maa ngi koy jaale Pape Bouba job yàlla na ko yàlla xare àjjana ci barki Serigne Saliou mi nga yaakaar Amina amin ci barki Mohamed kii nag mi ngi tudd euh, Ousseynou euh, euh, frère de Mage depuis point E nee na Amina macha allah yàlla na ko yàlla xare àjjana amin dee leen ñaan ku ngeen ñàkk ci réew mi yàlla na yéex dee leen ñaan ñaan da ngeen koy xool ci seen bopp boo ñaanee koo rus da lay may te suñ borom am na ñu mu rus kon bu ngeen ñàkkatee lu mel nii de leen ñaan suñ borom di def jàmm xéewal ci moom defal ñu ko ñun ñu yàgg fi ay ca laf cat Amina Poté macha allah wax ji rafet na merci beaucoup c'est la vie ñu demaat dégluwaat beneen musique boo xam ne woyoon nañ ko gaynde pour nga xam nga suñu artistes dañu baax 2002 xale yi ñoo produir seen bopp rien que lion yi bëgg ay ca ñu dem wuyul kooku nga xam ne lekkatul woon naanatul woon yokk ko ba mu sës jox ñu vidéo bi nga yokkal ñu ko ku gañee dama koy woo léegi bu dee mi ngi ci côté bii mu ñëw léegi jël enveloppe bu juróomi junneem kii mi ngi tudd ki gagné Alaaji Malick waaw téléphone bi laay jël mais mais ma jël Facebook en attendant am na koo xam ne gagné na mi ngi tudd mi ngi tudd Mami Sarr li tax mu gagné dafa def euh, RIP Pape Bouba Diop repose en paix. ba pare dugal ay drapeau laalal ko ci ay bopp gaynde macha allah mami xarama woo la bu fekkee soriwoo fii nga ñëw léegi ñu jox la sa enveloppe bu fekkee da nga sori nag léegi ñu envoyé la ko par transfert d'argent 77 117 117 defe naa mami Diop la de waa 77 117 45 ak li ci topp d'accord ay ca ay ca téléphone bi gaaw ñu ngi may wax ni 117 euh, 45 ak li ci topp ay ca téléphone bi euh, bu fekkee pare na pare na ay ca Eva bindal dégg nga bindal allo noo def. oui ça va. ça va bien noo tudd. Mami Sarr. fan nga dëkk. Zac ah da nga sori yow Mami Sarr. waa léegi dinañ la defal léegi benn transfert 25000 dégg nga. waaw d'accord waaw boo jot boo ko jotee nga woote waat ci numéro bi numéro TFM la dégg nga. waaw ok ok mami merci beaucoup. ay ca kooku gañe na continuer leen di envoyé continuer leen gaaw di envoyer euh, euh, euh, Pape Bouba Diop yàlla na ko yàlla xaree àjjana def ci ay drapeau loolu rek laa soxla laajuma tey ay xol ak jooy yooyu yim ngeen may defal tey laajtewuma ko man li may laajte mooy. ñu ñaan ñun ñëpp comme ay mbokkam comme ñun fansam lañu bëgg ko mu nekk suñu lion de la teranga génn àddina démb ci dimanche bi ñu bokk ak ay mbokkam naqar bi loolu rek laa wax loolu rek loolu rek laa wax waxuma leneen ay ca ñu dem ci téléphone bi allo. allo Amina. waaw noo def. maa rek ça va alhamdulilah. ça yaa ngi ci jàmm. Euh, maa ci jàmm. ay ca nan nga dundee li ñu dal démb euh, suñu gaynde. Euh, naqar bu metti rek. metti na de ah. metti na trop trop trop ay ca lan nga koy ñaanal. ñoo ngi koy ñaanal yàlla xarit àjjana. amiin. ubbil ko àjjanaam gën a sori Firdawsi. Hmm, est-ce ràññee woon nga ko bu baax ci équipe nationale. bu baax a baax. Ah, lan nga ñu mën a wax ci souvenir bu la gën a neex ci lum jot a def 2002. Euh, xanaa bit bi mu dugal rek. bit bi ñëpp Sénégal contre kan. Sénégal France. keneen ku topp ci euh, moom El Hadj Malick allo Eva allo jox ma ko waaw allo. ayca ñu dem euh, kii nee na Amina Poté euh, franchement sama xol dafa naqadi démb dimanche bi xaw ma nu ma ko dundee kondelee koo laax wala nga lax metti na de hmm, xam nga dimanche souvent kër yi dañuy togg ñamu soow ah. dañuy togg sucré léegi nag ma jël quelques téléphone ñu doog a dem ci thème bi xaar ma jël keneen mu gañewaat kii mi ngi tuddu hmm, Mbay daw na rëcc na bala ngaa liir sax mu dem man mosuma dund lii euh, repose en paix Pape buuba Diop ah repose repose en paix Pape Bouba Diop dawatina c'est normal ah c'est normal noonu la ma mettee barki Serigne Saliou bu ma sañoon réew mi kenn du am problème kenn du am problème ñu bon ñi sax bëgguma ñu am problème billaay parce que xol moo mel noonu day yërëm xale bu yaru xale bu fonkoon liggéeyam bu bari jom boo xam ne équipe nationale ñëpp ko bëgg ay nawleem ñëpp ñëpp ko bëgg ay ca kii mi ngi tudd dañuy nuyoo dégg ngeen balaa maa nuyu kenn mu foog ne dafa gañe di ñëw léegi nuyoo la dégg ngeen ayca ñu ngi nuyu ki nga xam ne mooy euh, nogay Diop ak euh, Devin Ndiaye Diatta ak ki nga xam ne mooy euh, Ndour Babacar ak Ndeye Binta Ndiaye Eva Lay ak ki nga xamante ne nii mooy Modou Diop Diop ak ki nga xamante ne nii mooy Fatima xawma naka Ousseynou Ba ak Nasi Seck Sène Mohamed ak ki nga xam ne mooy Soso Mandiang Sophia Mandiang maa ngi lay nuyu kooku c'est ma grande sœur elle habite Mbour Thiocé Ouest Soso maa ngi lay nuyu bu baax a baax euh, naaru Alima Mandiang Alima Mané ak euh, Pa Chérif Mandiang macha allah yow naati nga bokkal ndey ak baay ak xale yu yaru yooyu ñoom Baba Yeya ñoom ñoom nga bokkal ak ki nga xam ne mooy naa Cissé maa ngi lay nuyu bu baax a baax ak Adja euh, nday Binta Thiam ak Aram Faye ayca jox ma ko alu allo. alo allo oui na nga def. maa ngi fi Amina. Aïcha yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax. ca ñu bàyyi la nga wax yow noo dundee naqaru démb bi fii Sénégal. ii Amina loolu moom man moom xam naa ne dama koy waxaat sax sama xel di sama xol di tooy. attanoo ko moom moom reeru ma. Mhm. pour ma nelaw damay image yi day ñëwaat sama bopp. dëgg la de. image yi ñëwaat Pape Bouba man li ma gën a marqué nag ci Pape Bouba mooy discrétion. waaw yaroom macha allah. discrétion kenn mm. musu koo dégg ci dara. billaay dëgg la nekk na ci digg ndëndam mais kenn koo dégg ci dara. billaay ndeysaan. nit ku discret wóor la ne mm. am yar daal Pape Bouba daal c'est une grosse perte pour le Sénégal. billaay dëgg la lan ngay ñaanal fameem ak njabootam yu sew yi mu fi bàyyi ak ñi nga xam ne ñoo koy naqar lu mu ne. njaboot ji teew ji xanaa ñaanal leen suñu borom teg ci ñoom loxo. Mm-hmm. ndax comme moom muy yiir. Mm-hmm. te moo fi jëlee seen papa. Mm-hmm. te li tax mu jëlee ko fi moo ko xam. bilaay dëgg la. waaw kon yàlla dina leen sàmmal boppam am naa ci yaakaar. yàlla na ko yàlla def. te yàlla dina ko def incha allahu rab. ay ca fàttali ma sa tur. man Adja la. Adja. waaw. ay waay waaw bee ko daane te Adja gañe na lii. merci beaucoup euh, ñu dem jëlaat keneen euh, Adja gagné na presque mais waaw bi mu mujjee wax moo ko euh, daane te lii alalu ñi dul wax waaw la kon man mënuma ci dara c'est vrai que aujourd'hui dañu waroon janté ak ñëpp mais waa xol yi neexul mais tamit alalu ñi dul wax waaw mënoo koo jox ñiy wax waaw xam nga waaw bijou wala ah si loolu la allo oui. salaamaaleykum Amina. maaleykum salaam noo def. maa ngi si rek ba yaa ngi ci maa ngi sant sëriñ Saliou Mbacke foo ñuy woowee. maa ngi di woowee Mariste. démb xam naa sa xol naqari na de. waaw xol moom naqari na lool macha allah. noté leen waaw bi waaw naqari na moom. waaw macha allah déegi moom du Sénégal kese monde entier la. waaw billaay dëgg la. waaw loolu moom monde entier la xanaa di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana. amiin amiin ci barke Serigne saaliw waaw suuf oyof ci kawam mu taseeg maraakam yërmande. amin amin waaye. waaw te liñ ko seedee lit mu fekk ko fa mu tëdd. amin ci barke Serigne Saliou. waaw ci barke yonent bi incha allah kontaan nañ fàttali ñu sa tur. Awa Mbaye la. Eva kontaan nañ lool ci moom euh, début ba fin waaw la ko duggee xam naa xol bu tooy la duñ def rek moom itamit lu dul ñaanal ko mu gudd fan lool en petit dundal ba doyal ndax dañoo ñàkk nag ki ñu ñàkk muñ koo booleek ñun c'est pas des guignols quoi mënuñu ñàkk ba pare di nekk fii di kërti mënuñu nekk xol bu neexul man de xanaa loolu naa fekk ko man nekk ci problème ba pare di mel ni man automatiquement boo ma toojee sax day feeñ ci man rawatina nag suñ borom mi nga xam ne <laughs> waaw man je comme ça quoi li may dund ni ma mel laa mel lu bokkut ci man bokkut ci man mais comme euh, je suis un peu stressée depuis hier franchement euh, je joue pas jox ma ko waaw jox ma ko ma soog a ñëw ci thème bi jox ma ko allo allo ay ñu dem ci Facebook bi xoolaat kan allo ay ay ca jox ma ki ci topp ñu dem ci Facebook live bi xoolaat kan moo fa mën a gañe euh, ku tudd Adjo Ouz Ndiaye xam nga li tax ñuy bañ ngeen bindee nii seen tur yi Adjo mooy lan Adjos Adjos de defe naa joolaa la Adjos. allo Amina. ma chérie. ça bien alhamdulilah. bien foo ñuy woowee. Euh, Liberté fàttali ñu sa tuur Fatou Silla. Fatou Uh-huh. Fatou Sylla xanaa démb am nga naqar de. trop Amina yëpp am naqar parce que Pape Diouba Pape Bouba moom Pape Bouba ñëpp la woon. billaay wallaay xale bu yaru. dañu koy sant yàlla. Uh-huh. yàlla yàlla xaare ko àjjana. allah yàlla lu gën rek lay def Amina. lan ngay ñaanal njaboot ju sew ji mu fi bàyyi. leen ñaanal rek yàlla teg leen loxo sàmm leen. parce uh-huh. tamit yàlla moo yor ñëpp. ndeysaan. ndeysaan ay ca sa tur. maam Fatou Sylla. maam Fatou Sylla. maam faatu gañe nga Petite bu am classe fan nga nekk nii ci Dakar. Liberté euh, neex na la lien ay ah? na ma torop. ayca merci beaucoup merci beaucoup léegi boo fi jaaree xàmmee ko yaa ko gañe dégg nga. ay ca jël leen turam pour mu bañ a jaxasoo maam Fatou sillaa dangay ngay defaale tamit appel normal par euh, réseaux sociaux euh, pëti am maam Fatou Silla moo gañe li pour ñu jëlee ko fi ma xam euh, li fi des ay ca ñu demaat ci bii pa defe naa xaalis lay doon ñu dem ci Facebook live bàyyi ko mu ñëw waaw ah petit amoo dëj yaay natt périg bi yow amoo dëj koon yow lion bi dem petit mettiwu la wala stress la boole <laughs> stress dina def loo nit ndeke lu ne ñun ndeke suñ naqar naqaru tey jii nu ne lañ koy dundee tey pëti yow de boo jaxasootee dinaa toppal bagage yi ci kër gi yëpp yow ndeke stress nii la lay def maa doo yegg natt noo def maa ngi fii madame dooy denc sa yére yëpp maa doo ko natt boo <laughs> yeggee da nga def. ngi fi. foo ñuy woowee. Dakar. yaa ngi wootee dakaar Dakar. Aïcha sa naqaru démb lañ bëgg nga nettali ñu ko ba nga yegee euh, nouvelle bu naqari boobu nga xam ne ñaanatuñ yàlla gaaw koo am. oh am naqar. Mm, mm-hmm. na ko yàlla yërëm ci barke Cheikhul Khadim Mbacke. fu mu jëm amin amin amin euh, Pape Bouba Diop est-ce que yow xamoon nga ko bu baax ba muy football de xamoon naa kay. est-ce que am nga souvenir ci moom. ah coupe mhm. est-ce que ràññee nga numéro maillot bi mu doon sol mën nga ñu koo fàttali. waaw numéro 19 la doon sol. ay ca jox ñu sa tur. Dieynaba Mbaye. Dieynaba Mbaye foo dëkk. Yoff. Yoff. Dieynaba. yéena ba mbay am petit ayca ñu demaat euh, ci keneen gaaw waa bàyyi ko mu dugg amul problème ku ne ci ligne bi rek na ñëw ayca allo ayca euh, kii mi ngi tudd euh, Oumy Fall repose en paix Pape Bouba daw Firdawsi Soa mais daw na mais moom deful sax numéro Soa ça demeure la bëggoon bind xam naa ayca jox ñu ki ci topp allo allo waaw ba ko mu ñëw. Aïcha ñu dem nag tànn ci Facebook live bi kenn kii mi ngi tudd Aïcha Chacha daal la def Aïcha euh, Jab Bari Aïcha Jab Bari Aïcha mi fu muy fu muy bindee nii waaye Sénégal la de xaama capturé ko bindal ma Aïcha rek Chacha Chacha allo. allo oui. oui oui booboo génne mais ñu bàyyi la nga wax li nga sentir démb allo. allo waa Amina. waa démb loo yëg ba nga yëgee nii danoo ñàkk suñu gaynde googu. metti rek ak tristesse. metti na de ah. metti na lool. ay ca lu ak moom sax il suffit mu nekk Sénégal sénégalais rek da lay metti. ndeysaan. Mm-hmm. ñun ñëpp am lu ñu metti dafa mel dañ bokk ak moom. billaay dëgg la billaay mm-hmm. ci fàttali ma sa tur. Salma Salma Fall. Salma. Salma Fall. Salma Fall. waaw waaw Salma kontaan nañ ci yow dégg nga faal d'accord jërëjëf merci beaucoup euh, bëggoon nañ mu gagné li des ci perruque yi mais waaw bee ko daane moom itamit jox ma ki ci topp ñu ñëw nag ci thème bi vite fait parce que nit ñee ngi ñuy xaara ah. léegi nag euh, thème bi tey euh, kii la intimité xam nga petit Sénégal bëri na oui ça va de dafa rëcc allo. allo waaw. noo def. maa foo ñuy woowee ma chérie. Nord Foire. yaa ngi wootee Nord Foire noo tudd. Maymuna. Maymuna mën nga ñoo wax loo sentiir ba nga yëgee démb nouvelle bi. ah metti rek. metti na de. metti na moom. ay ca Maymuna mën nga ñu jox ay souvenir ci moom bu fekkee xamoon nga ko ràññee woon nga ko bu baax. mën non man nag 2001 bi la moo tax. un 2001 mille un lañ la takk. non non 2001 bi laa juddu. ah 2001 bi nga juddu 2002 xam nga rek. Ndeysaan wax na dëgg wax na dëgg moo tax ma leen di wax ku ko koo xamante ne fekkee na ko quoi parce que am na xale yoo xam dañ précoce ñu ngi soog a juddu may mun a. dafa perte ba pare tiit waaw waaw waaw a jërëjëf kontaan nañ ci yow merci beaucoup ay ca mën ngeen ma tëyal euh, téléphone bi ma daa di euh, jël Facebook live beneen personne kii mi ngi tudd euh, mi ngi tudd hmm, waaw Chacha ah Chacha gañe na ay ca bindal leen ma ko foofu ma joxe thème bi doog ñëwaat ci Facebook bi xool ku gañe petit xam nga vie privée Sénégal dañu koy foowe vie privée bokk na ci nekk sa biir kër di sinap di génne la nekk ci sa kër yépp loolu ci cadre vie privée la xam nga dafa am espace public yoo xam ne su fekkee da nga bëgg photo wu photo booy publier am na espace public ci comme naam fa nga dëkk am ci fierté waroo koo génne mais du yow rek a dëkk ci kër gi am na ñoo xam ne du leen neex am vie privée bokk na ba ci sinap sa sa ndékki sinap sa añ xam nga ju n'importe quoi la ñuy def Sénégal te yooyu nit ñaa ngi am feebar yu leen di dal yoo xam ne ci yooyu lay jaar parce que xel dafa graaw ndax dugal nga benn miss wi boo xam ne macha allah ma nga doore ba mel ni kenn mënu la ko expliquer nga publier ko comprendre nga bu njëkk mag ñi dañ amoon waxukaay. am sutura am ñu ñuy waxal te mag ñi bu njëkk lu ñu waxaan du génn pour nga xam ne bu njëkk mag ñi dañ daan am kuñ bokkal école jël ko def ko xarit def ko confident di wax ak ñoom seeni secret boo xam ne du génn mukk mais léegi petit dama seet da ngay wax ak sa xarit ne ko yow de démb li ma dal vocal ko ko de moo tax éviter leen man du ma du ma blâmer ñiy tasaare vidéo yeeg vocal yi xam nga kan laay blâmer ki confiance waroo ko jox sax sa doom soo nee confiance waruma ko jox sama doom dafa am yoo xam ne leer na la ni su génnee sa fit rëcc teye ko pour yow parce que mën nga ko jox sa doom sa noon jaar ci sa doom nit am na koo xam ne kotu téléphone xam nga nu muy def pour am ko dalay fréquenter boo dugalee un mu jàpp ko tey bind ñibbi bind un xam nga un bi ñoratu ko ndax jàpp na ko jour yi mu lay fréquenté mu jëlaat deux bi yeneen jour yi mu jël ba xam nga kon kooku xam na la nit du toujours nga mën a téye sa portable te portable léegi nit ñi dañ ko def comme coffre lu ne lañ ciy denc mais téléphone photo yu rafet ak yenn secret humain mais doy na ci sëkk sëkk sëkk ak numéro téléphone am na téléphone yi nga fonk doo ko bàyyi ci portable da nga koy def ci sa agenda léegi nag nga bëgg a jël yow photo sa yaram wala filmer loo doon dund bëgg koo bàyyi ci sa téléphone alors un jour sa xarit ubbi sa ubbi sa code dugg jël say vidéo wala ngeen waxtaan ba ne ko démb nii laa defoon yónnee ko ko mu publier ko ba pare nga bëgg mer soxlawul mer yaa tooñ sa bopp xanaa xamoon ni vie privée bokk na ba ci nga def caméra surveillance ci sa biir kër di filmer sa ay bon xool ban comportement lañ yor ci kër gi loolu vie privée la parce que bon bi daf lay liggéeyal mais moom it vie privée am amoo pour conseil nga koy jox wala boo demee bay def ay caméra surveillance ci sa kër ñu bari xamuñu loolu te mën nga ci tëdd kaso 10 ans du caaxaan benn tubaab saa yu wàccee day fekk doom ji rouge mu ne nunu bi day dóor doom ji wala doom ji lan moo ko def nii xale bi day jooy ba pare guddi gi yaramam tàng xam nga nu paa bi def tubaab bu weex tàll def caméra surveillance ci douche ci toilette bi alors ba mu defee caméra surveillance ci toilette bi mu jàpp bon bi di sang xale bi di ko xët xam nga bon du ñun Sénégal rek ñoo am ñu bon fépp am nit ñu bon dafa am ñu supporté wul xale am ñu supporté wul nit alors moom dafa juum ba demee am preuve jël preuve bi yóbbu ko police ñu arrêté nunu bi mais moom dañ ko tëjaale ah parce que caméra surveillance ak xaj ñoo yem bala nga koy yar ci kër wala nga ko fay monter da nga ko war a da nga war a abuser nit ñi da ngay bind ni def leen ndànk fii am na caméra surveillance bu fi nekk est-ce que comprendre nga du yoon caméra surveillance boo ko tafee ci sa buntu kër yoon am na droit indil la problème xam nga lu tax yow xoolatoo sàcc rek mais ñiy romb te kenn bëggul ñu gis leen di nga leen gis est-ce que comprendre nga alors ñi ñëw ci ñi nga xam ne ñoom ñooy weeraate kilo la wóolu petit ba jox la ay secret comme ñun mënuñu ñoo taqale ay xarit am na ci ñoo xam ne ñoom xarit leen gënal ceebu midi te en général xarit bu bari nag képp ku ko bëgg nettalikat ngay doon parce que li ngay wax ak sàmba bëgg ko wax ak Demba bëgg ko wax ak Aysatoo keneen ak keneen loolu mënul nekk nit buy dund yëfu nit day nite normal kii dafa bindanteeg xaritam koo xamante ne ñoom ñaar benn nit lañ xarit bi lépp luñ mës a wax ci àddina ci affaire copain yam euh, kilifa gum doon génnal ci réew mi xam nga ñu waxtaan ci waxtaan ci waxtaan ci waxtaan ci ba un jour moo xaritam ñu am problème xarit bi léegi fu mu toog naan su ma neexee dama koy weer ndax diw la doon génnal diggante boobu mën naa koo yàq léegi léegi léegi ndax man maa ngi ak preuve léegi preuve yi ñi ko mën a xool la koy wan ñi ko mënta xool mu yónnee leen ko par SMS WhatsApp waa loolu toroxaloo nit ki te loolu li koy indi petit jalousie la soxor man de petit soo ñëwee nopp ma dama lay nopp mais boo amee fulla ba bàyyi ma dama lay bàyyi yàgg mbalit mi oto bi yóbbu laa le xam nga lu oto mbalit xas ba yóbbu yow dootoo ko gisati man du topp si gannaaw kenn loolu man sama dret la ne man danga may bëgg ma wan la ni maa la raw mais boo ma bàyyee ma bala muy far di jëkkër di xarit koo mënt di doon am na diggante yu ñuy négocier mais négocier bu ëpp day indi ñu jéppi la ndax ku dëkk di la jubale dootu la nawloo man du ma nangu kenn di ma jubale chaque jour mënoo di ànd ak sa copain chaque jour ñu jubale leen wala sa jëkkër chaque jour ñu jubale leen wala sa copine chaque jour parent yi nekk ci naan ba ngeen yaroo ba tey yéen a ànd mais mënatu leen ànd mi lay wili pande say mbir denc nekkatul ci sutura mais bako bu ngeen bëggee ne ci jàmm xool leen li leen di yàqal ngeen ba sama benn frère dafa mës a dem di arranger benn euh, jëkkër ak jabar mu ne jëkkër ji bii mooy dernière fois ma ñëwaat fi di la arranger xoolal li nga xam ne sa jabar bëggatu ko nga ba ko yow xam nga ne dangaa nopp sa jabar wala yow dangaa nopp sa jëkkër te chaque jour ñu arranger leen xool leen yéen ñaar ñiy sëy te am problème am na ku ci am problème parce que jëkkër ak jabar bu ñu amee problème mooy loolu mënul nekk yow mi góor di bu dee da ngay taxawaalu mais bàyyi ko bëggoo fase sa jabar ba pare bëggoo jub mais doo jug ci ñu lay arrangé te dañuy fowee say di xanaa xamoo sëy bu amee chaque jour intermédiaire dootul neexati parce que sëy dafa am secret sëy dafa am secret ñi nga xam ne nag dañuy weeraate ñoom jàpp nañ ne amuñ vidéo ba kenn mën leen a weer ñoom rek ñoo mën a jot ci vidéo jàmbur yi bay weer nit ñi ñi nga xam ne dañuy sànni audio nit ñi ñëpp di ko yëg ñoom jàpp nañ ñi ñoom waxuñ lu garaaw ñoom rek ñoo mën a capturer lu garaawu nit àddina nul na parfait nit ñi yemuñ est-ce que comprendre nga nit ñi yemuñ nul n'est parfait dañoo war a dañoo war a dañoo war a yow xanaa da am suukar kii silim na de parce que man li ma jaaxal maas dafa <laughs> moo pare ci yow yow laay tëjee ndax yow jàpp nañ la dégg naa dem ci benn coupure courant te am na ñoo xam ne coupure rek la ñuy doxaan <laughs> ba ma pare rek yaa ngi dégg petit mm-hmm. léegi petit yow sama vidéo ñëw na ci yow nga jàpp ni danga ko war a publier pour toroxal ma d'accord mën nga ma toroxal weer ma fii Sénégal mais loolu bu la ko nit baalul xajul ci sa bàmmeel parce que cëru doomu aadama suñ borom bu ko nëbbutoon du defar ay yére liir suturaal ko moo tax tubaab bi ci boppam bu liir juddoo léegi liñ koy laxas mi ngi tege pour lan suturaal ko wormaal ko ndax ni mu ñëwee léegi yow nga jël koo xam ne njaboot na am doom nga jël koo xam ne am na jabar am na ñu ko bëgg am ñu ko bañ nga am ay quelque affaire am ne yow da nga koy piblier ndax lan bëgg yokk sa bopp buzz ak bëgg koo humilier ba dootul jar dara ci àddina yàlla mooy defar te fi yàlla di defaree euh, noon mënu faa yegg bay yàq arrêté leen ngeen xam vie vi vie vie vie professionnelle xaw ma nuñ koy waxee vie privée ak ak lu ñu war a publier am na koo xam ne dafa dugal ci sinabam par erreur def nii ci téléphone rek laal benn photo boo xam ne de pièces la sol rek photo ba rëcc dem Sinap xam nga am na ñoo xam ne dañ def ci seen téléphone application boo xam ne loo supprimer ci àddina ñoom dañ koy am parce que téléphone doy na waar doy waar boo xam ne ku ci nekk war ngaa war ngaa xam xam nga kan moo ko récupéré xaritam benn bakkan moo jël photo bi ba pare yónnee parce que dafa gis ni kii dafa dugaloon dara mais supprimer na ko xanaa moom bam ko amee mu war a noppi jàpp ñàmburam waaye da koo jël ba pare yónnee waat ko ko non seulement publier wu ko mais kooku ci la doxee nii am problème mu xol ba tey parce que gor la am na ñoo xam ne seeni yaramu neen bugguñ ko ko gis man de xam nga wax ci télévision dafa doy waar man sama jëkkër ji may sëyal sax bugguma am na yoo xamante ne buñ demee ba war ko séq dama naan na làmp yi fay wala may dof lu ba heure bi ñu fay làmp yi no mais Médoune kersa su jugee ci doomu aad nit du toroxal boppam yaa ngi dégg xam nga nañ waxante dëgg tamit am na yenn waaraate yoo xam ne day tas àddina parce que dafa am booy wax war a war a yedd ay gor war leen a waar pour ñu xam ñooy te waaraate du dara lu dul conseiller sa nawle boo taxawee ci télévision di waar nit ñi di wax yu vulgaire suñ doom yi ñu ngi toog nañ arrêté bu fekkee ne dafa am ustaas yoo xam ne tamit dañuy wut buzz ci waaraate dong mais nañu wax mais mënoo di waaraate di di di di ubbi ah waaraatekat yi léegi ñu ci bari lu ne la ñuy wax ay awra ñun animatrice yi nga xam ne foo moo ñu tax a jug sax amuñ sañ-sañu wax ko mais bu fekkee waaraateetuñ dañ ñëw ci télévision pour buzz mais nañ ñu wax ñi ngi yàq euh, éducation xale yi te sa doom mënoo ko tere mu seetaan dara parce que loo ko tere mën na dem xale yëpp a yor téléphone day dem YouTube ne sama yaay lim may tere xaaral ma xool lan la ñu fekk la fa yow yow ci taat rek ngay wax. nga ne yow da ngay jàngale diine yow te fuñ la fekk yaa ngi waxtaan amul émission am na ñoo xam ne oustaz lañ dañuy waaraate dañuy ubbi émission ñoom kenn laaju leen ay thème xam nga luñ leen laaj ñu won ñu suñu diine teg ñu ci yoonu siraatal mustaqiima mais tey jii ci ay ci état lañ ñuy wax wala ci ci ci keneen ak keneen wala ñu ñuy wax si ay ay ay ay ween ay ay ay mais du n'importe quoi du yoon am na benn euh, waaraate bu fi amoon bu tuddoon tontu taaxal defe naa loolu ñun ay xale lañ mais macha allah déglu nañ ko ba loolu ni mu fi jógee amul lu vulgaire te arxuraan ah RTS la ak Alaaji Moustapha ci comprend yow gis nga diine arxuraan amul benn moo bu vulgaire ñun dañuy animer xëy na mën nañ déraper nii mais dofuñ dina jàpp ñu bay taxaw ci télévision plus de ay junni nit di ñu seetaan ñuy wax waxu dof quand ñu respecté ñu mais buñ ñu fonkul fonkuñ seen bopp ñu fonk seen doom yi mais mënoo taxaw ci télévision naan non mais dafa am yoo xam ne man rus naa koo wax ci télé parce que waxu télévision booy wut bës ba wax ko day des petit lii ma la wax léegi tontu ba taaxal léegi boo ko tàppee léegi danga koy gis te loolu def na presque xanaa 30 ans alors boo nekkee ci télévision di jàngale da ngay xam ne yow mii jàngale moo la tax a jóg wax li nga xam ne du may nit ñi parce que wax dafa doy waar loolu la ñuy tuddee am na ñoo xam ne ay influence lañ suñ waxee benn affaire rek day def bomb yow mi nga xam ne da ngay génn télé nag te loo wax mu def bomb war ngaa xool li ngay wax bu baax a baax a baax. mais mënoo boo taxawee ñëpp di la seetaan te nag kaay max la seytaanee tollu këram di la seetaan cuq la ci message na la yaa ngi fiy toj rek nga jaxasoo nag bàyyi leen di génn télé di dégg yaa ngi fiy toj yaa ngi fiy toj artiste bu moytuwul di ko dégg da nga def loo war def say soppe jéppi la yaa fi ne ak yaa ngi fiy toj télévision bii xam leen ne avant ñun am na ñu fi newoon ñun it dinañ dem suñuy rakk wala suñuy doom ñëw nañ bàyyi xel ci lu ñaaw kii li ñuy wax ci vie privée dafa divorcé ak jëkkëram à cause de nee na jëkkër ji may na ko chance presque lu tolloog juróomi yoon ñu ne ko lan mooy seen problème mu ne jëkkër ji d'accord day taxawaalu ba mu xam ni taxawaalu mooy yëfam d'accord taxawaalu mooy yëfam munul bàyyi taxawaalu mais jabar ji ñaan ko ne ko d'accord léegi munoo bàyyi doxaan te yow ñu ñàkk classe rek ngay doxaan ak man sama valeur fu mu toll man dama lay ñaan dara dafa nopp jëkkëram bëggul tas jëkkër ji ne ko loo may ñaan mu ne ko léegi looy defati na nekk ci sutura waa petit nag boo demee ba munoo bàyyi doxaan noo war a def doo joxanteeg rendez-vous gel bu foo xamante ne kenn du la nettali sa jabar di ko yëg ah mbala nga mbala nga mbala nga mais yow day dem di baali jabaram di ko dégg muy ànd ak ay gel jabaram di ko dégg loolu ku fonkul sa jabar moo koy def te nag fii ku takk jigéen ba foog ne war nga koo yilif ba foowee ko ndax nga sa bopp nit dana tardé te du xam lan moo ko tardel fekk ak jigéen a ko dal xale yu góor yi keroog dama leen fee faral mais jox leen seen jabar yi gel bu baax sax war nga ko jox gëdd parce que nday seen nday yi jigéen lanu jigéen dañ koy suturaal rawatina ki nga xam ne jigéen amul xel jigéen bu la nobee dof lay doon sëyu ci bari jigéen dong moo koy sëy góor ñaa ngi tardé fi mu ne te kenn xamul li leen toroxal di leen tardeel te ngeen bañ a déglu seen yenn xarit yu bon yi ak seen sœur yu perte yi ndax perte ak ak ak bon weesuwul nga naan sa càmmiñ yow defal lu la neex góor nga ah góor du réglé mais wax ko dëgg ndax jëkkër goroom da koy ruus ba du ko mën a yedd ay mbokkam ñoo ko mën a yedd ne ko téyee ko nii jigéen nii lañ koy téyee suturaal ko loo am may ko gàttal sa tànk yow nee nga taxawaalu da nga ko judduwaale mënoo ko bàyyi d'accord mais amal classe man dama xale bu jigéen bi dama ne ko mais ñaan ko baat nga dem bëggul changer day ànd ak ay gel toujours nit ñi di ko photo di la ko yónnee sa xol di dagg alors que nga bàyyi ko te bañ a am feebar bu la rey moo gën sinon nga continuer di sëy moom day yàq sa àddina nga perte te boo ko bàyyee mën ngaa am ku ko gën jigéen ñi bu kenn tas sa sëy sëy leen te yàlla tax mais gëm leen tamit aussi seeni bopp am na yoo xamante ne nii du poche du tubéy du dara sëy yàlla moo ko santaane góor war a am jom jigéen war a am jom mais bu ngeen demee ci dëkku naar yi dañuy jaamu seen jabar yi fii nag Sénégal koo ko fi def ñu neen aka ragal jabar ji da koo jiital mais nangu leen ragal seen jabar yi képp ku lay wax ci sa jabar lu tax nga war koo fase ma nga téye jabaram bu dee sa mag la ma nga tëyee jabaram bu dee say xarit lañ ma nga téye seeni jabar te la plupart dañuy tas sa sëy ba pare ngay ànd ak ñoom nekk célibataire loolu gàcce la sëy doo ci dugal famille sëy doo ci dugal xarit sëy doo ci dugal kenn bu demee nag ba am fu mu tollu avant ñoom nga leen di woo ñooy xam ni nekkatu leen ci jàmm ñoo leen di teg waxtaan ak yéen mais yow chaque minuit nga génn cinq heures du matin booy dëpp fekk say mbokk toog pour yedd la ndax lan chaque jour nga bàyyi sa jabar ci kër gi dem sa yoon mais lan ngay jaay yow rek doo góor et puis yow yaa ngi toroxal sa jabar fekk mbedd mi ñëpp a ngi naan diw amul classe diw amul personnalité di toroxal sa jabar di toroxal sa njaboot góor da ngay am fulla ba pare góor bu demee ba am jabar activité am yëpp wut xaalis la war a doon ndax bàyyil say doom lu ñu doon ëllëg. te ndaw day wees mënoo jël sa àddina yëpp def ko ci mbedd quand ku foo ba am 35 ans wala nga foo ba am 40 ans boo takkee jabar loo war a def yow yaa ko xool kenn mayu la ko ba bëggu ko ba takk ko xanaa nag war nga koo mën a suturaal toog ci wetam te ñu ci bari duñ waxtaan ak seen jabar yi te sëy du toogal ci kër gi toggal ma guddi jot ñu nelaw non non noo sëy relation la te relation mooy saa yu ngeen amee temps war ngeen mën a échange échangeante ah bàyyi leen xel bàyyi leen mais dëgg la non mais imam bu dee yow non moom du def loolu imam dafa baax nit ñi xamuñ kuy imam peut da taxawaalu yow ah waa waaw ay ay ay dégg nga loolu xam nga loolu dafa doy waar man liñ ma wax nii sax ñemewuma koo nettali lii may wax ni télé am na yoo xam ne ñemewuma koo wax apulaay ah ci ay message kii dégg naa <laughs> lii ñemewuma koo wax man bokk ma ustaas yi wax yu lii rus naa koo wax lii kay ñemewuma koo wax kii dafa nopp jabaram ba gëmewu ko dégg naa dem ñu maase ko rek dégg naa maase boobu ñu ko maase ca la jabar ji waa xam nga loolu garaaw na kon kooku nobu toon jabaram waaye jabar ji li ma lay wax mais xam nga loolu doy na waar ah yow waxaatal dégguma dis-moi encore góor ñi man mu génn mënatul dox dégg nga lii moom nu mu doon doxee da doon coos wala <laughs> da wengal defal ma liste bi mais góorgóorlu leen xale yu góor yi mbir nag buñ ko waxee ci télévision nga déglu ko ba mer xamal na yow yaay chefu def ko lu bon yi parce que nee naa la ku bonul bu ñuy wax ci ku bon yow waroo am dara lu la metti mm, il faut que télévision yi buñ bàyyi naam am na ñoo xam ne euh, dara safu leen ay wax ju leen waaye góor góorlu leen góor ñaar ñii ñoo ko mën a toroxal ndayam ak jabaram boo demee ba am njaboot tamit was lu àq ci say doom kon xale yu góor yi bu leen déglu seen frère yi nga xam ne te nag te nag képp koo xam ne rek say frère ñi ngi lay naan waaye yow ragal booy sa jabar wala say sœur ña nga teye seen jëkkër bokk ko ci ruq kenn jotul ci ñoom bàyyi leen yéen i tamit sayu jàmbur yi sëy dañ koy ñàkk sëy niñ koy ñagee mooy mën nga cee ñaanloog yooyu waaye sëy ña ñuy déglu nee naa leen déglu ay nopp moo gën a fragile gàllaaj gàllaaj bala moo jàpp waxa ko gën a gaaw sëy yu bari tas nañ te seeni borom doyaluñ te seeni mbokk ak seeni xarit a ko tas moytandiku leen mënoo uuf sa jabar teg ko lax ko fu yàq yeggul ba pare tas sa jàmbur wala nga jël sa jëkkër dugal ko ci mbuusu naay teg ko tëdd ci ba pare nekk ci sëyu jàmbur di ko wax loo xam ne te jëkkër ak jabar dañoo jege gis nga jëkkër ak jabar ndegam jëkkër moo mën a wéet di nettalil yaayam mas sa sëram nit dana jéppi nit te du xam lu mu ko jéppee fekk na jëkkëram wala jabaram wax na ko ne ko sama yaaya la wax lii wala sama mag téye leen seen làmmiñ yi te ku ne ah? ah non mais c'est vrai léegi téye leen seen jabar yi yéen ñi nga xam ne tasagu leen téye leen seeni jabar am na jigéen ñu mën a sëy ñoo xam ne gaynde lañ ci kër mën a sëy waaye comme Amina la ñu mel yaa ngi dégg dukk la wax nga xuri ko ndax souvent nga baale mais dafa yoo xam ne gor du ko baal nawleem ndax bu yàggee da lay day indi yabel téye leen xale yu góor yi seen sëy yi ndax ngeen bañ a ndax ngeen bañ a perdre seen i temps ci àddina ndax di takk di fase di takk di fase di takk di fase baaxul ci góor baaxul ci jigéen waaw am na góor ñoo xam ne nag ñoom tooguñ fenn muy doxaan di sëy fuñ dem lu ñàkk fayda mën na leen faa jële waaye boobaa da ngay mat ne déj xaar ku ko gën wacc ko moom mu dem ndax koo xam ne ngelaw a koy yóbbu ngelaw a koy mujje di nga dem ba foo xamante ne ngelaw li du du du yëngu pour delloo la fa nga jóge woon ay tey lii moo nekkoon euh, lii moo nekkoon temul lënd bi ngeen góor góor lu bàyyi ci xel bu baax a baax di remercier nag Pape Aw euh, borom référence cuture moom mi ma ñawal euh, borode bu nooy bile ak euh, seydu daabo mi jaayi tissu bi yomb na lool tissu bi moom bu ngeen demee ci seydu Da presque ñaar dërëm lay jar moom tissu bi baax na coton la te yomb na. merci beaucoup Medoune Diouf borom impro merci beaucoup Petit Ndoy chéri madame Ndoy Bayu Amina merci beaucoup El Hadj Malick chéri Kumba madame Ndiaye merci beaucoup Tok mu sëñ Fallou ak madame Guissé ak Fat ak Eva mi nekkoon ci téléphone bi kontaan nañ ñi jot a gañe nag mën ngeen a euh, jël euh, ñëw jël si seeni i ñi nga xam ne xaalis lañ gañe dinañ leen ko defal euh, par transfert d'argent merci beaucoup à ce soir incha allahu rabbi ngoon ñi ngi waat ci télévision bi bu soobee yàlla ñun ak yéen 16h ayca. Samya kumur warta yaa